mbokk yi seetaan GMT TV ñi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fas yéene dikk ak yéen tey ci benn tënk bu gàtt muy benn documentaire bu ñu leen waajalal buy jëmmal liggéey bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di liggéey ci biir koor gi ak lépp lu ci aju ci atum deux mille vingt dëppoo ak mille quatre cent quarante deux hijriya te xëj na yàlla fal xam nañ maqaamam ca xar baax ca ma yaa xam boromam ca wàll wàll yaa ca xaw xaw dafa diwaan te xutbu yaa at at ña daawee ak boromam ña xam yàlla fal fa jaar boroomam ñaxam yàlla ñaxam yónneem ca baawoon ba tey kenn jaarul fa mu jaar boroomam liggéey boobu nag ñu ko xamee mu ngi tënku ci ay xaaj yu bari benn bi ci wàllu organisation la muy nu ñuy organiser ndog yi ñuy amal ci jumaa ji waaye ci biir organisation boobu nag am na beneen pàcc boo xam ne mu ngi soxal jataay yi nga xam ne mooy waxtaani diine yi kon lépp loo xam ne aju na ci liggéey boobu ci tàmbali bi njëlbeen gi ba ci mujjantal gi incha allah lépp lañ leen bëgg woon ci tënk bu gàtt ngir ngeen mën a xam liggéey boobu naka la doxe xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma mbooloo mi taxawee liggéey boobu muy koor gi ci biir jumaa ji toll nañ ci juróomi téeméeri nit ak juróom fukk cinq cent cinquante personnes ci commission yu bari muy organisation bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi ci wàllu toppatoo ak defar barab yi ak waaj waajal liñ fi jëfandikoo ak commission bi nga xamante ni mooy commission culturelle yor lu aju ci wàllu waxtaan yi muy conférence yi ak commission bi nga xamante ni mooy commission sociale yor lépp loo xamante ni mu ngi aju ci jokkalante biir daayira bi ak bitti daayira bi ci invité gan ni ay kilifa ñuy seet si ndogu yi di leen gunge di leen won liggéey am na itam commission communication boo xam ne lépp lu aju ci waxtaan yi ak liggéey yi nga xam ne moom la daayira bi di def ci biir koor bi ñoom ñoo leen koy won li ci jokkaloo ak ëpp toskaayu xibaar yi moo xam télévision la wala site internet wala rajo am beneen commission boo xamante ni moom la ñuy wax commission finance nga xam ne moo yor lépp lu aju ci wàllu koppar bu ñuy finance ci biir koor ak secrétariat boo xamante ni nag secrétariat général ak secrétariat administratif boo xam ne ñooy coordonné moo leen liggéey bi kon liggéey bi noonu la tëddee. waaye liggéey bi nag mi ngi tàmbali ci ginnaaw rek mën nañ wax ne jullik fajar teg tuuti juróom-ñaari wax bu jotee la mbooloo mi nga xam ne ñooy raxas mbooleem jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ci koor gi ñëw ci jumaa ji dajale mbooleem jumtukaay yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo woon war ko raxas moo xam termos la moo xam kaas la moo xam plat la moo xam napp wala bépp jumtukaay bu ñuy jëfandikoo rek ñoom ñooy saytu ko raxas ko ba mel ni mu war a mel ñu exposé ko di xaar ay jëfandikoo ko jot ñu mën a ñëw jël bu defee nag am na waañ woo xamante ni ñooñu moom ñooy waajal xéewal yi ñooy defar kafe yi bisaab yi jinjeer yi neew yi lépp lu ñu jëfandikoo ñooñu itam bu ñu xëy see juróom-ñeenti waxtu danañu dem ci magasin bi intendance magasin bi nga xamante ni fi la ñuy denc produit yi ñuy jëfandikoo ñu jël bon bon de commande bi nga xam ne moom la leen secrétaire jox ñu war faa dem jëli seen commande moo xam suukar la moo xam jinjeer la moo xam bisaab la moo xam meew lépp lu ñu jëfandikoo ñoom jël ko yóbbu ci seen waañ bu ñu àggee foofa foofa lañ koy waajale foofu lañ koy waajale gis ngeen ko noonu ci waajtaay wi ñu di ko waajal yor seeni tarmuus ñiy defar café ñu ngi defar kafe ñiy defar meew ñu ngi defar meew ñu segg bisaab bi ñu ngi koy defar ñiy defar jinjeer ji mboolem luñ fi jëfandikoo rek ñooña ñooy ñu koy saytu nga xam ne neuf ci suba ñoom lañ fay ne ba juróomi waxtu fekk lépp sotti am na beneen sous commission boo xam ne ñoom ñoo yor ni ñuy tegee jëfandikukaay yooyu ci yokk yi ñoom ñoom lañ jox fi barab yi nit ñuy dogee ñoom ñoom itam danañ ñëw ci magasin bi def ni waa waañ defoon jël seen bon de sortie jël mbooleem loo xam ne war nañ koo teg war nañ koo jëfandikoo ñu teg ko ci barab yi nga xam ne moom la ñu doge ci meew ci jus ci boisson ci beignet ci ay charcuterie yi muy formage gruyère saucisson mboolem lu ñu fiy jëfandikoo rek ba ci ndox yi yëpp ñoom ñoo koy exposé nag teg ko nga xam nga ne lal yi ñu ngi koy lale fu mel ni mu mel ni ñu sàppe di julli noonu lañ koy lale noonu itam la ñuy exposé xéewal yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo bu ñu ko tegee ba noppi nag am na beneen sous commission boo xam ne ñoom itam ñoo nga ca seenu broq ñoom ñoo yor lépp lu aju ci wàllu mburu mi xam ngeen ne mbooloo mi fi dogee bari na bis bu set danañ utiliser lu toll ci deux mille baguettes maanaam ñaari junni yi mburu ñaari junni yi mburu te mburu mu ne danañ ko xaaj ci digg bi ñu jëfandikoo ko nga xam ne kon mën nañu wax ne ñeenti junniy nit gën jaa néew danañ fi daje ci mbool ñoom itam gis nga gis nga leen noonu day dagg mburu mi di ko bër yenn yi nga xam ne soxlawul dër ñu teg ko buru bu ci nekk la ca war a dem ñu dem waaye nag gox barab bu nekk moo xam yokk numéro un wala numéro de sous commission bu nekk la nga soxla ci mburu ñoom ñoo la koy livrer ñoo la koy jox pour nga mën koo séddale ñoom itam gis ngeen loolu noonu waaye lépp nag ànd ak nag ñuy sàmmonteeg hygiène bi commission culturelle ñoom ñoo yor wàllu waxtaan yi gis ngeen ko noonu lu mat fanweeri jotaay waxtaan moom lañ programme ci jumaa ji fanweeri jotaay yooyu commission culturelle moo koy sayt gis ngeen leen noonu jotaay waxtaan yaa ngoogu waaye gis ngeen waa commission bi itam noonu ñu ngi noonu di dajale laaj yi laaj yooyu dañ koy wutal ay bis yoo xam ne ci la ñuy tontu laaj yi bu ñu ko dajalee jébbal ko commission bi ñu saytu laaj yi man ko programme ci bis yi nga xam ne moom lañ jagleel fatawaa yi di ci tontu laaj yi bu waxtaan wi jeexee nag ci juróom-ñoon juróom-ñaari waxtu maanaam 19 heures ci la waxtaan wi jeex ci la nag fekk nga doon waajal ndogu ya ak fañ koy lale ñooñu nappi nañ bu defee nag ngeen gis mbooloo mi nag jóge ci biir jumaa ji ci barabu waxtaanukaay yi nag di dugg si ñu def ko nag ay duggin yu wuute ngir mbooloo mu bari mi tàncaloo bañ a am am na ñuy jaar ci kanam. bunt bu bunt bi nga xam ne moo jàkkaarloo kër Sëñ Fallou am ñuy jaar ci beneen bunt bi jàkkaarloo kër Cheikh Abdou Lahad am ñeneen ñuy jaar ci bunt ba ca ginnaaw ba ci diggante yokk beeg jumaa ji sax bu mbooloo mi feesee am na annexe bu ñu fi def boo xam ne ngir bëgg rek ñëpp mën a dog seen ko ba ci soxna yi am na barab boo xam ne moom lañ leen jagleel buñ ci jógee gis ngeen mbooloo moomu nag li ñuy bari bari xam ngeen ne lu man ñeenti junni nit fu ñu nekk laaj na nag ñu am sécurité gis ngeen sous commission sécurité bi mi ngi noonu ànd waa police ñu ngi ci waaye itam sécurité mu xaddamatul xidma bi féete ci jumaa ji ànd ak sécurité yi nga xam ne dañu ñëw di renforcer liggéey bi gis ngeen leen noonu yow taxaw ci bunt yi waaye nag di wax ak nit ñi ci xekk maag maweza xasana di jëflanteeg ñoom jëflante bu nooy ngir rek kenn bañ a def naka sudul noonu waaye ñëpp itam mën na dog ci dal mën a dog ci dogin wu rafet woo xam ne dara du yàqu gis ngeen mbooloo mi nag dug biñ duggee ba noppi nag gis ngeen leen noonu muy mbooloo mu baree bare bari ñu toog yokk bi ci kanam ba ca topp muy deuxième bi troisième bi ba ci soxna yi gis ngeen leen ba ci annexe bi nga xam ne bu mboolaam mi bare foofu lañ leen di dugal ci diggante yokk bi ak jumaay Tuuba gis ngeen mbooloo mu baree baree bare ñu ngi noonu toog di xaar nag waxtu doggu jot bu ñu solee nag ba dog nag ba ñu dog seen koor ba noppi ba julli timis nag mbooloo mi nag ba mbooloo mi tàmbalee tasoo nag ci la ñuy xool nag bagage yi nga xam ne moom lañ indi woon nag sous commission bi nga xamante ni moo koy dajale nag dajale waat bagage yooyu yëpp war ko delloowaat dalli moket yi dindi napp yi dajale bagage yi gis ngeen loolu noonu ñu koy ramassé di ko rangé vaisselle yi nga xam ne ay verre la yi nga xam ne ay thermos la ñu rangé yëpp delloowaat bu ñu noppee nag am na beneen sous commission boo xam ne ñooy futteeku nag doon barab yi ñu doon doge nag ñu war koo setal dafay des ci ay xotti mbuus ay takk-takk lépp la ñuy raxas wut ndox wut eau de javel wut saabu wut ay produits àndandoo nag di ko raxas ba mu set nga xam ne bala ñoo nodd gee dana fekk foofu set ba wow ba ñuy julli sax buñ leen ne fii doon nañ fi jëfandikoo danga naan déedéet ngir set ak sell gu mu sell liggéey boobu nag gis ngeen ni mu yaatoo ñu ngi nekk ci coordination secrétariat général ak secretariat administratif bi nga xam ne ñoom ñooy coordonné liggéey bi di ko saytu gis ngeen secrétaire général bi noonu di signé lettre yi nga xam ne képp koo xam ne dugal na loxoom ci koor gi ak nu mu ko ci dugale moo xam xaalis la moo xam bagage na moo xam benn doomu tàndarma sax danañu ko bind danañu bind itam lettre muy accusé de buy wone ne diw sàngam joxe na fi nàngam jébbal la ko muy liggéey bu am transparence boo xam ne bu leer la secrétariat administratif bi gis ngeen ko noonu ci bureau bi mooy defar lépp lu aju ci wàllu badge yi ñuy tàkk carnet yi ñuy soxla lettre yi ñuy bind lépp lu aju ci mbind rek moom moo koy bind ku bindee jébbal ko secrétaire général bi bi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi moom itam lu ci nekk mu jëmane ko fa mu war a jëm waaye xam nga ne liggéey bu mel noonu itam du mën a ñàkk nit ñi di ko xam loolu nag ñu ngi koy jaarale ci commission communication muy kuréel goo xam ne lépp lu aju ci wàllu communication moo xam lu ñuy déglu la wala lu ñuy gis ñoom ñoo ko yore gis ngeen leen noonu ñu ngi ci régi bi nga xam ne moo ngi nekk ci biir jumaay Touba gis ngeen réalisateur bi noonu di monter di réaliser lu aju ci conférence yeek dogu yeeg mboolem image yi nga xam ne moo am ci jumaa ji mu ngi noonu caméraman it gis ngeen leen ñi ngi tasaaroo ci biir liggéey bi ñii ngay filme waxtaan wa ñii nga fële ci dogukaay yi ñii nga ci préparation yi noonu itam la ñuy defaree son yi nga xam ne moo jóge ci waxtaan yi ngir jébbal ko rajo locale yi fi nekk ngir nit ñi di mën a waxtaan yi ci rajo yi ni mu waree waaye itam commission sociale mooy commission bi ñu dénk jokkalante bi ci biir daayira bi ak bitti daayira bi ñoom nag ñooy woo kilifa yi dalal leen ànd ak ñoom won leen liggéey bi ngir ñu mën a xam tolluwaayu tolluwaayu liggéey bi fu mu toll ndax loolu ab soññee lay doon ci daayira Muxaddamatul Xidma muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bu mat a bàyyi xel boo xam ne tey daayira Muxaddamatul Xidma moo ko tàmbali waaye ñu bëree baree bëri ñu ngi koy roy ci réew mi kon nag day dugg ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne képp ku fi sos lu baax dana am ak payam ak payu képp ku ca topp di ko ca roy kon yàlla ñu da yàlla defal pay gu mel noonu te sëriñ bi nangu ko defal ñu ay xéwal yu bëree bëri mboolem ku ci jëf ak fu mu mën a doon ak fu mu mën a nekk ak ku mu mën a doon yàlla na ko sëriñ bi fayal boppam te yokk ay xéewalam yokk ay wërsëg kon mbokk ñuy seetaan tënk bu gàtt bi rek lañ leen bëggoon a indil ci liggéey bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di def ci koor gi te mu dëppoo woon ak ren ramadan dëppoo ak 1442 ci atum hijriya gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di jox daje beneen yoon incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa